màggalu mburu ya amul rewiir jege woon na te ñu di ko wax bisu jéggi ba sëriñ su mag sa ak xutbakat ya di wut pexeem rey lu yeesu ndaxte dañoo ragaloon nit ña noonu seytaan yi daldi solu yuda mi ñuy wooye iskariyo te mu bokkoon ci fukki taalibe ya ak ñaar noonu yuda dem waxtaani ak sëriñ su mag sa ak kilifaay wattukat yi kër yàlla ga ba xam nan la leen di jébbale yeesu ñu am ca bànneex bu rëy di ko xaalis ju daan nangu di fexe jamono ju leen mën a jébbal yéesu fu mbooloo ma nekkul bésu màggalu mburu ya amul lawiir agsi ci bés boobu lañu waroon a rendi mbote màggalu jéggi ba noonu yeesu yebal piyeer ak yowaana ne leen dem leen defaral nu réeru jéggi ba ñu ne ko fan nga bëggoon ñu defare ko fa mu ne leen bu ngeen duggee ca dëkk ba góor gu yenu njaq lu def ndox dina taseeg yéen topp leen ci moom ba ca kër ga muy dugg te ngeen ni boroom kër ga kilifa gi nee na ana néegu gan bi may lekke reeru jéggi ba man ak samay taalibe noonu dina leen woon néeg ba féete kaw te yaa ñu defar ko ba noppi foofa ngeen koy defare ñu dem gis lépp ni leen ko Yeesu waxe woon noonu ñu defar reer bi bi waxtu wi jotee Yeesu toog ak ndaw yi ne leen yàkkamti woon naa lool lekk ak yéen reeru jéggi bii laata ñu may sonal ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma ko lekk mukk lu dul ba mu mat noonu mu fab kaas daldi sant yàlla ne baruch jël leen kaas bi séddoo ko ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma naan ndoxum reseñ mi ba kere yàlla di tëral nguuram ginnaaw loolu mu jël mburu sant yàlla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 waaye ki koy wóor dina torox noonu taalibe yi di laajante ci seen biir kan ci ñoom mooy a def loolu taalibe yi di werante ngir xam kan ci ñoom moo gën a màgg yeesu ne leen buuru xeeti àddina dañu leen di dóor yetu nguur te kilifa yi dañuy sàkku ngërëm waaye yéen bu leen def noonu ki gën a màgg ci yéen na nekk ni ki gën a ndaw te njiit mel ni surga ki toog ca lekkukaay ba moom ak surgaam ñoom ñaar kan moo ci gën a màgg xanaa du ki toog ci lekkukaay bi waaye man maa ngi ci seen biir ni surga yéen nag yéene man ci samay fitna man nag jox naa leen sañ-sañu nguuru ni ma ko sama baay joxe di ngeen lekkandoo te naanandoo ak man ci sama nguur te di ngeen toog ci jal yi di àtte fukki giir ak ñaar yu bànni Israël Yeesu teg ca ne Simon Simon seytaane ñaan na ñu jébal leen ko ngir mu teqale leen ni ñu teqalee dugub ak xatax waaye man ñaana naa la ngir sa ngëm dëgër te yow boo dellusee nanga dëgëral sa mbokki taalibe yi Pierre ne ko borom bi àttan naa ànd ak yow ca kaso ba ci dee sax Yeesu tontu ko ni Pierre maa ngi la koy wax balaa ganaara sab tey jii dinga weddi ñetti yoon ne xam nga ma noonu yeesu ne leen ba ma leen yebalee te yebalewu leen woon xaalis mbuus walla dàll ndax ñàkkoon ngeen dara ñu tontu ne déedéet mu neeti leen léegi nag képp ku am xaalis na ko jël te ku am mbuus na ko jël ku amul jaasi na jaay mbubbam jënde ko jaasi ndaxte maa ngi leen koy wax lii mi ni muy wax faw mu am ci man bi mu nee boole nañu ko ak ñu bon ña ndaxte loolu jëm ci man mi ngi mat noonu taalibe yee ne ko borom bi ñaari jaase ngi mu ne leen doy na noonu yeesu génn dem ca tundu olivier ni mu ko daan defe naka jekk taalibeem ya topp ci moom bi mu agsee ca barab ba mu ne leen ñaan leen ngir bañ a daanu ci fiir noonu mu dànd leen ba fu aw saan mën a toll daldi sukk di ñaan ne baay soo ko bëggee teggil ma kaasu naqar bii moo na bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am noonu malaakam yàlla daldi koy feeñu may ko doole ci biir tiis yeesu gën a sawar ci ñaan gi ñaqam mel ni lumbi deret dal ci suuf bi mu ñaanee ba noppi mu jóg dellusi ci taalibe yi fekk leen ñuy nelaw ndaxte seen xool dafa sonnoon ak tiis noonu mu ne leen lu tax ngeen di nelaw jóg leen ñaan ngir bañ a daanu ci fiir bi Yeesu di wax mbooloo mu bari agsi ku ñuy wax yuda te mu bokkoon ci fukki ndaw ya ak ñaar jiite leen yuda jigéen si yeesu bëgg koo fóon waaye yeesu ne ko ci fóon ngay jëbale doomu nit ki ay noonam bi ñuy àndoon ak yeesu gisee liy bëgg a xew ñu ne borom bi ndax ñu dóore jaasi kenn ci ñoom nag dóor surgaab sëriñ bu mag ba nopp ndejooram dagg waaye yeesu daldi ne bàyyi leen mu laal nopp waaja wéral ko noonu yeesu ne sëriñ su mag sa ak kilifaay wattukati kër yàlla ga ak njiiti xeet wa ko jàpp si woon jóg ngeen gànnaayoo jaasi ak yet mel ni ñuy topp sàcc noona maa nga woon ak yéen bés bu nekk ci kër yàlla ga te jàpp leen ma waaye léegi seen waxtu la ak jamonooy lëndëm gi ñu jàpp yeesu yóbbu ko ca kër sëriñ bu mag ba Pierre topp fu sori amoon na taal ca diggu ëtt ba ay nit toog wër ko piyeer itam toog ci seen biir ab mbindaan gis ko mu toog taal bi di ko leeral mu ne ko jàkk ne nit ki itam àndoon na ak moom waaye piyeer weddi ko ne soxna si xawma kooku <laughs> nees tuuti keneen gis ko ne yow itam ci ñoom nga bokk Pierre tontu ko sama waay bokkuma ci tegee lu mat waxtu keneen dikkaat ca wax ja ne ci lu wóor nit ki àndoon na ak moom nde galile la jóge waaye Pierre tontu ne sama waay xawma li ngay wax bi kàddoom di daanu faf ginaar daldi sab noonu borom bi gestu xool piyeer te piyeer fàttaliku la ko borom bi waxoon ne balaa ginaar a sab tey jii dinga ma weddi ñetti yoon piyeer daldi génn di jooy jooy yu metti nit ñaa nga jàppoon yeesu di ko ñaawal ak di ko dóor ñu ngi takkoon ay bëtam di ko laaj naan ko yow wax nu ci kàddug yàlla ku la dóor ñu ngi ko doon tifaarit yeneen i saaga bi bët setee kuréelu njiiti xeet wa maanaam sëriñ su mag sa ak xutbakat ya daldi daje indi yeesu ci seen kanam ñu ne ko soo dee almasi bi wax nu ko mu tontu leen ne su ma leen ko waxee du ngeen ma te su ma leen laajee du ngeen tontu waaye ginnaaw si tey doomu nit ki dina toog ci ndajooru yàlla aji kàttan ji noonu ñépp ne kon nag yaay doomu yàlla ji mu tontu leen ne yéen ci seen bopp wax ngeen ne moom la Όλοι ñu daldi ne nag lu ñu doye di seede léegi ndegam nun ci sunu bopp noo ko nangoo ci gémmiñam ginnaaw loolu kuréelu àttekat yee yépp daldi jóg yóbbu Yeesu ca Pilaat foofa ñu tàmbali di ko sosal naan fekk nañu nit ki muy fàbbi suñu réew di leen tere fay galak César te mi ngi teg boppam almasi maanaam buur noonu Pilaat laaj ko ndax yaa di buuru yawut yi Yeesu tontu ko ne wax nga ko Pilaat ni sëriñ su mag sa ak mbooloo ma gisuma genn tooñ ci nit kii waaye ñu sax ci seeni wax naan mi ngi jógloo mbooloo mi di jàngale ci réewu yawut ya mépp li dale ci galile ba fii bi pilaat yégee baat yooyu mu laajte ne ndax nit kii galile la dëkk bi mu yégee ne yéesu ngi nekk ci diwaan bi erod yilif mu yónnee ko erod mi nekkoon ci jamono jooju ci Yerusalem bi Hérod gisee Yeesu mu am mbég mu rëy bu yàgg ba tey daf ko bëggoon a gis ndaxte déggoon na ñuy wax ci ay mbiram te yaakaaroon na ne dina ko gis mu def kéemaan noonu mu laaj ko ay laaj yu bari waaye Yeesu tontuwul dara sëriñ su mag sa ak xutbakat yaa nga fa woon di ko jiiñ bu metti noonu erod ak ay xarekatam toroxal yeesu di ko ñaawal ginnaaw loolu mu solal ko mbubb mu rafet delloo ko pilaat erod ak pilaat dañoo ñi bañante woon bu jëkk waaye ci bés booba doon nañu ay xarit pilaat daldi woo sëriñ su mag sa njiit ya ak mbooloom yawut ya ne leen indil ngeen ma nit kii ne ma day jàdduloo yoon mbooloo mi léegi nag man mi laaj naa ko ci seen kanam waaye gisuma tooñ ci moom ak li ngeen koy jiiñ lépp erod itam gisul tooñ gu mu def ndegam mu waat nu ko nit ki deful genn tooñ gu jar ñu koy rey kon nag dinaa ko dóor lu ay yar te bàyyi ko waaye ñu bokk di yuuxu ñoom ñépp naan reyal kii te bàyyi barabaas dañoo tëjoon ndax te dafa jéem a tas dëkk ba te rey nit pilaat waxaat ak mbooloo ma ndaxte dafa bëggoon a bàyyi yeesu waaye ñu yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ne leen ñetteel bi yoon lu tax gantooñ la def gisuma ci moom dara lu jar dee kon dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko waaye ñoom ñu sax ca lañu waxoon di gën a yuuxu naan ñu daaj ko ci bant coow la yey pilaat mujj gi pilaat dogal ñu leen li ñu bëgg mu bàyyi leen ki ñu ko ñaanoon kooku ñu tëjoon kaso ndax tas réew ma ak rey nit waaye mu jébbal leen yeesu ci seeni loxo ñu jàpp ku ñuy wax Simon te mu dëkk Sireen ku jóge ca wet ga féete ak tool ya sëf ko bant ba ñuy war a daaj Yeesu ngir mu gàddu ko topp ci moom ka ko jigéen ñu bare ngi doon yuuxu di ko jooy yéesu daldi wëlbatiku ca ñoom ne yéen jigéenu yerusalem bu leen ma jooy jooy leen seen bopp ak seeni doom ndaxte jamono dina ñëw ju ñu naan jigéen ñi musula jur ak ñi musula nàmpal barkeel ngeen bu keroogee nit ñi dinañu tund yi daanu leen ci sunu kaw te naan janj yi su leen nu ndaxte suñu defee nii garab gu tooy gi lu ñuy def garab gu wow gi yóbbaale nañu itam ñeneen ñu ñaari defkati lu bon ngir rey leen bi xarekat yi agsi ba ca barab ba ñuy wooyee kàngu bopp ñu daaj fa yeesu ca bant daajaale ñaari defkatu bon ya kenn ca ndeyjooram ka ca des ca càmmoñam noonu yéesu ne baay baal leen ndaxte xamuñu li ñuy def xarekat ya tegoo ay bant yéeréem ngir séddoo ko mbooloo maa nga fa taxaw di setaan njiit ya di ko reetaan naan musal na ñeneen na musal boppam su fekkee mooy almasi bi ki yàlla fal and they parted his raiment and cast lots. ñu daaj mbind mu tiim ko naan kii mooy buuru yawut yi xarekat ya it di ko ñaawal ñu jege si jox ko bineegar te naan su fekkee ne yaay buuru yewut yi musalal sa bopp kenn ca defkatu lu bon ya ñu wekkoon ci bant di ko xas naan ko xanaa du yow yaay almasi bi musalal sa bopp te musal nu waaye ka ca des yedd moroom ma naan ko xanaa ragaloo yàlla yow mi ñuy mbugal ni moom nun yelloo nanu sunu mbugal waaye moom deful dara noonu mu ne yeesu fàttaliku ma boo ci sa nguur yeesu tontu ko ne ci dëgg maa ngi la koy wax tey jii dinga texe ak man ca jataayu yàlla noonu digg bëccëg daldi jot jant ba nëbbu réew mépp daldi lëndëm këruus lu mat ñetti waxtu

juddo bu sell ba ca kër yàlla ga daldi xar woote ak kàddu bu dëgër naan baay jébbal naa la sama ruu bi mu waxee loolu mu delloo ruwaam yàlla bi njiitu xale ba gisee li xewoon mu màggal yàlla ne dëgg-dëgg nit ki ku jub woon ba ñu gisee loolu ñu dellu seen kër fëgg seen dënn di jooy xamee yeesu yépp ak jigéen ña ko toppe woon galile dand leen di xool li xew nit ku ñuy wax yuusufa dem ca pilaat mi ngi dëkk arimaate ca diwaanu yudde yuusufa nga bokkoon ca kuréelu àttekat yi nit ku baax la woon te jub te àndul woon ci li ñu dogaloon te jëf ko da doon séentu nguuru yàlla mu dem ca pilaat laaj ko néewu yeesu ginnaaw loolu mu wàcce ko ca bant ba laxas ko ci càngaay dugal ko ci bàmmeel bu ñu yett ci doj te musuñu ca def kenn fekku bésu waajal la woon te bésu noflaay baa ngi doon tàmbali jigéen ñépp ngay woon yeesu galile ànd ak yuusuf gis bàmmeel ba ak nañu ca dencee néewu yeesu ba אדוננו הלכנו. ברוכים אתם. noonu ñu dellu defari cuuraay ak laj pale ngir néew ba. ca bisu noflaay ba ñu noppalu. ni ko yoon wi santaane. bés bu jëkk ci ayu bés ga jigéen ñi jóg ca fajar dem ca bàmmeel ba ñu ngi yoroon cuuraay lu ñu defaroon bi ñu agsee ñu fekk ñu bëreeg doj wa ubboon bàmmeel ba ñu dugg ca bàmmeel ba waaye fekkuñu fa newu borom bi yéesu noonu ba ñu nekkee ak seen jaaxle am na ñaar ñu leen feeñu sol yére yuy melax jigéen ñi am tiitaange ju mag daldi dëpp seen jë ci suuf waaye ñu ne leen lu tax ngeen di seet kiy dund ci biir neew yi nekkatu fi dekki na fàttaliku leen la mu leen waxoon ba mu nekkee galile neewoon na faaw ñu jébbal doomi nit ki bàkkaarkat yi ñu rey ko ci bant mu dekki ci ñetteelu fan ba noonu ñu daldi fàttaliku kàddu yeesu ya bi ñu jógee bàmmeel ba ñu dem nettali ji loolu lépp fukki ndaw yi ak benn ak ña ca des ñépp jigéen ñi ñoo doon maryaama magdala saan ak maryaama yaayu saak yeneen jigéen yi leen gunge woon itam nettali loolu ndaw ya waaye ñu teg wax jooju ay jeneer ba gëmuñu jigéen ñooñu waaye Pierre daldi jóg اللي خلقها منا and ran onto the sepulchre. daw dem ca bàmmeel bi mu àggee mu sëgg lu càngaay la noonu mu dëpp ñibbi jaaxle lool ci li xew ca bés boobu ñaar ci taalibe yi di dem ci dëkku emawus te mu sori yerusalem ci lu mat fukki kilomètre ñu waxtaane li xewoon lépp bi ñuy waxtaan ak a sottante xalaat yéesu ci boppam dab leen ànd ak ñoom fekk seeni bët muuru ba mënu ko woon a xàmmee yéesu ne leen lan ngeen di waxante nii ci yoon wi noonu ñu taxaw seen xool jeex kenn ci ñoom ki tudd Kleopas ne ko xanaa yow rekk yaa ñëw Yerusalem te umple li fi xewoon bés yi Yeesu ne leen lu fi xew ñu tontu ko ne mbirum Yeesum Nasaret ab yonent la woon bu doon def ay jëf yu mag di wax ay kàddu yu am doole ci kanamu nit ñi ak ca kanamu yàlla waaye suñuy sëriñ su mag ak suñuy njiit ñoo ko jëbal nguur gi ngir ñu àtte ko teg ko dee ba daaj ko ci bant nun nag danoo yaakaaroon ni mooy ki nar a jot Israël waaye bi loolu xewee ak léegi tele ñetteelu fan bi teewul nag am na ay jigéen yu bokk ci nun yu nu jaaxal dañoo fajaru ca bàmmeel ba waaye fekkuñu fa néewam ñu dellu si nettali nu ne ay malaaka feeñu nañu leen yëgal ne mi ngi dund ñenn ci suñu àndandoo yi dem nañu ca bàmmeel ba fekk lépp mel na ko jigéen ñi waxe woon waaye moom gisuñu ko noonu yeesu ne leen yéen daal yéen a ñàkk xel te seen xol yeex a gëm li yonent yi yégle woon xanaa du almasi bi dafa waroon a daj boobu coono te dugg ci ndamam noonu mu tàmbali ca yonent yàlla musa ba ci yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram bi ñuy jub dëkk ba ñu jëmoon nag yeesu def ni kuy jubal yoonam waaye ñu téye ko ne ko toogal fii ci nun ndaxte jant baa ngi so te léegi mu guddi noonu mu dugg toog ca ñoom bi ñu tàmbalee di reer yeesu jël mburu ma gërëm yàlla ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ ba noppi damm ko jox leen ko bi mu defee loolu lépp leer ci seeni bët ñu daldi ko xàmmee waaye yeesu ne mes gisatuñu ko noonu ku nekk naan sa moroom ndax sa xol seddul woon bi muy wax ak nun ci yoon wi te muy tekki mbind mi ñu daal di jóg ca saasa fekk fa fukki ndaw yi ak benn ak yeneeni taalibe ñooñu ne leen dëgg la borom bi dekki na te feeñu na Simon ñaari taalibe yi ñoom it daldi leen netti li la xewoon ca yoon wa ak ni ñu xàmmee Yeesu bi mu dammee mburu ma bi ñaari taalibe ya dee wax noonu Yeesu taxaw moom ci boppam ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen ñu daldi tiit foog ni dañoo gis njuuma waaye Yeesu ne leen lu tax ngeen jaaxle ak lu tax ngeen di xel ñaar ci seen xol xool leen samay loxo ak samay tànk man mii la laal leen ma te xam njuuma amul yaram walla ay yax nu ngeen gise ma am ko bi mu leen waxee loolu mu woon leen ay loxoom ak ay tànkam waaye ba tey mënuñu woon a gëm ndax seen mbég ak jaaxle noonu yéesu laaj leen ne ndax ngeen fii lu ñu lekk ñu jox ko doggu jën wu ñu lakk mu jël ko lekk ci seen kanam noonu mu ne leen bi ma nekkee ak yéen waxoon naa leen baat yi li ñu bind lépp ci samay mbir ci yoonu Musa ak ci téere yonent yi ak ci sabuur dafa war a am noonu mu ubbi seen xel ngir ñu xam li mbind mi di wax mu ne leen faw almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan ba ni ñu ko bindee te it ñu yégle xeet yépp ci turam dale ko ci Yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen yéenay samay seede te man dinaa leen yónnee li sama baay dige yéen nag toog leen ci dëkk bi ba ñu sol leen doole di jóge ci kaw loolu yeesu yóbbu ca wetu betani foofa mu yëkkati ay loxoom barkeel leen bi mu leen dee barkeel mu tàggoo ak ñoom yàlla yéegi ko asamaan וישם לך שלום. taalibe ya màggal ko daldi dellu yerusalem fees ak mbég foofa daawu ñu jóg ca kër yàlla ga di gërëm yàlla